télévision internationale la ñu ngi relayer drame bii nga xam ne moom moo am ci Mbour te ay limu doomu aadama yu bëri ñàkk seen bakken ginnaaw bi nga xam ne dañu doon def lu ñuy wax immigration irrégulière wala immigration clandestine ci loolu la son excellence ba siru Diomaye jaxaar Faye pour la première fois ñu gis ab njiitu réew dem ci ab plage bi nga xam ne drame yu mel noonu dafa am ndaxte ci histoire euh, immigration clandestine ak régime yi nga xam ne jaar nañ fi musuñu ko woon gis waaye lenn nga xam ne moo ci ëpp solo mooy discours bii nga xam ne son excellence monsieur Bassirou Diomaye Diakhar fay tëgër na ko nekkul un discours politique ndaxte xam ngeen ne lii nga xam ne moo jëm ci wàllum immigration clandestine yàgg nañ koo politiser te mbir mi depuis jamonoy maître Abdoulaye Wade la tàmbali ñuy wax Barcelone wala Barsax yëf yi maître ab euh, maître président Macky Sall ñëw yëf yi arrêté wul yëf yi gën a wulee ñaay waaye discours bi yëpp dañ ko doon politiser ñii def nañ fi juróomi weer te yëf yi encore tey la gën a yokk mooy maanaam mbir mi wàññeekuwul benn yoon malgré espoir bii nga xam ne ndaw yi ñoo ko xeexal seen bopp porté bonne euh, projet bi nga xam ne ñoom dañ ca amoon yaakaar dañ koo teg yaakaar fii ñukk ni yekk bu forox ne dañuy dem bàyyi bàyyi lii nga xam ne moom moo taxoon ay Sénégal am ay manifester ay yooni yoon mooy maanaam ay nit yu bëri euh, ñàkk seen bakken ay kat ay dégâts yu bëri am ci réewum Sénégal ñu yaakaaroon ne jeunesse bii nga xam ne ñoom ñoo xeex seen projet pour toog liggéey dañoo xeex li nga xam ne daanaam njëriñ li sax bëgguñu koo xaar te loolu gisuma sens nga porte benn combat nga ñafe ko ba yëf yi antu mu nekk li nga xam ne adduna bi mu ngi koy rafetlu ñu fal euh, benn njiitu pour la première fois à 54 pour cent ndaw yi nga xam ne ñoom ñoo liggéey loolu yëpp bàyyi lii nga xam ne moom mooy seen œuvre moom mooy seen liggéey di commencé di jël gaal yi di dem bi xaru ci ci géej gi kii nga xam ne nag mooy so excellence monsieur Bassirou Diomaye Diakhar discours bii nga xam ne da ko tenir nekkul un discours politique pour la première fois discours bii nga xam ne moom la wax askanu Sénégal bi di ko dégg c'est un discours de vérité te dafa am benn mi nga xam ne ko ca taftal mooy maanaam bëgg na léegi képp bépp sénégalais bi nga xam ne patriote nga soo gisee kenn ki nga xam ne dafay waaj jël gaal nga yoole ko te boobu léegi état na la jàppale. mu mel ni kon woy bii nga xam ne moom la moo jee woyoon ne xale bi dina ma yoole yoole léegi système mu yoole la bëgg mooy maanaam la dénonciation bii nga xam ne ça peut sauver des vies te sénégalais amul culture dénonciation mooy maanaam di gis kuy def ñaawteef wala di gis kuy def ay délit sénégalais day mel ni mu yëf yi concerné wu ko te gis ngeen ne. lii nga xam ne moom mooy euh, immigration clandestine daanaka laal na famille yëpp koo la koo laajte ñu la diw ña bakkanam des na ci waaxi euh, Atlantique bi te loolu dafa nekk li nga xam ne faw ñu ci saafara te lii nga xam ne nag man jàpp naa ne moom mooy euh, maanaam lii mën a tax ba ndaw toog lii nga xam ne projet la bu ndaw yi porté mu nekk yaakaar yaakaar boobu ko kenn tas ndaxte tas yaakaar boobu noonu mooy gën a amplifier lii nga xam ne mooy phénomène bi moo tax may ñaan kii nga xam ne moom mooy son excellence monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye ak Ousmane Sonko bii nga xam ne ñoom ñoo incarné euh, espoir u jeunesse sénégalaise yëpp wala jeunesse africaine yëpp ba projet bii nga xam ne dañ ko porte ñu jaay ñu ko nañ fexe ba yaakaar ba bu mu sa tas ba jéego yi nga xam ne dañ koy teg pour jëmal liy suqali réewum Sénégal te am na yeneen mbir yoo xam ne ñu ngi koy def mais comme dañuy wax ne toute œuvre humaine n'est pas parfaite parce que tey dégg naa joueur basketteurs yi doon wax ne kenn fayu leen seen prime ñooy leen déete mbir yi suppeeku ña nekkatul xaalis liquide bi leen di jox waaye lépp li nga xam ne dafay génne say dage dafay am lu ñuy wax traçabilité mooy maanaam joueurs yi dañuy indi seen i compte bancaire ñu viral leen seen xaalis mu nekk li nga xam ne état du Sénégal lépp li nga xam ne koppar la bu ko buggee contrôler dina ko mën a saytu te loolu aussi acte bu positif la mbir yi nag c'est vrai que ne ñu ngi teg ay changement mais changement yi dafa ay ay bi galeuses yi nga xam ne dañ cay rax di xajamal mbir mi te loolu dafay tax ba espoir bi nga xam ne day tax ba xale yi teel a xàddi day tax ba euh, yaakaar teel a tas moo tax ba ñëpp ñi nga xam ne dañoo nekk ci projet bi am taxawaay bi nga xam ne dafa safaanoo lii nga xam ne moom lañ porté mooy euh, combat bi ñooñu dañ leen teel a day tax ba yaakaar des day tax ba nit yi duñu gaaw a xàddi seen xarit la woon Léon Baltasar le Caméléon di ñaanal guddeeg jàmm ak salaam.